bëgg nañ enfoncer Karim Wade ba tey ba biig Albouri Ndaw ma ñu waxoon ne moo ko génne kenn tegu ko bët ba tey ba biig kenn demul Singapour génne milliards yooyu ñëw ne mu ngi nii ñu teg ci taabal bi ñu ne am na actionnaire la aéroport Malabo tey amul kenn ku mën a duut baaraam ci wax jooju c'est-à-dire que ils nous ont tellement vendu du vent du vent du vent noonu la ñu mm-hmm. def ba tëj Karim Wade tey ca njëlbéen ba dañoo génn liste vingt cinq personnes ni ñi la ñu épinglé et justement en parlant d' interdiction de sortie à l' ñoo ñu vingt cinq personnes yooyu noonu mais dañ leen interdiroon de sortie <laughs> xam nga ñoom lii ñuy wax nii du guleen de Seydou Sow lii arrivé ko tey nii dem ba aéroport ñu delloowaat ko mais ñoom def nañ ko fi Ousmane Ngom ba dëkk la nekkoon ñu fekk ko foofu yónni waa dig ñu dem këyir ko fële. xaw ma Kolda xaw ma Tamba. Tamba Tamba. waaw ñoom Macky Sall ñi ñoo ko fi def. nangu gars yi seen passeport. interdire leen de sortie du territoire. te booba. booba génnee guñ benn rapport bu épinglé ces anciens dignitaires de Ablaye Wade mais de façon systématique dañ leen interdire de sortie ñoom ñoo ko fi defoon waaye ñoom boobu dañ doon wax ne day yàq image du pays. day wax ne dañuy yàq démocratie pays te loolu Macky Sall moo ko fi def ba mu demee ba ci digg mi nag ca la ca génne woon à l'époque mm-hmm. Ousmane Ngom ànd ak moom dem Guinée te Ousmane Ngom il était sous régime d'interdiction de sortie mu jël ko moo tax gis nga Macky Sall en matière de droit wala de amul benn leçon bu muy wax wala ñoom seen ñoñ yi amuñu benn leçon mm-hmm. bu ñuy jàngal Sénégalais parce que loo xalaat ci jalgati. Mm-hmm. saatu réew loo xam nga daan comparé ak Wade def nañ ko dama leen Wade bu daan def dara comme président yi baax yi ci àdduna bi yëpp mm-hmm. day ubbi conseil euh, nu mu tudd constitution bi code pénal code procédure pénale yëpp xool ko ba fan la ko yoon may mu yem mu yem mu appliqué loolu même bu dee metti wala muy neex wala nangam noonu la koy defee mais Macky comme li mu wax nii day def li mu def ba pare ne fang. ni maa tey. dem wut benn ne gars yi débrouiller leen conseil mi. utal leen ñooñu ñoo daan son waaw ah, utal leen nu ko layale hmm. taxaw naan en principe. waaw. ñi nga jàngal say dong nga jàngal lii lii pare ñëw wax la moo tax mooy ki nit ñi gën a weddi ci àdduna ah, moom sax daa weddi bopp moo ko def la Macky Sall day def li muy def ba pare ne day suul ndaanaan cest à day def li muy def ba pare ne wutal leen ma loi bu ko layal hmm. bu jaree ñu démb xool nu ñuy modifier loi bi ñu modifier ko waaye man li ma bëgg day am na fexe ba wut lu ko layal tey ñoom interdiction de sortie bi ñuy wax nii mais ñoom noonu lañu defoon vingt cinq personnalités Ablaye Wade enquête commencé gul woon tubaab biñ woolu mu ñëw mhm. waaw cagadi mooy ki nekkoon directeur dem dikk tur bi laa fàtte mooy Christian Christian Salvi Christian Salbi Christian Salbi. Ah. mais kooku dañ ko indi moo tax gis nga France. feeg yaa ngi defi intérim bu la neexee sax amul problème xam nga foofu la wuuteeg Amérique. Mm-hmm. kooku dafa wuy si bi mu kii fii lañ feebar ba aggravé mu dee. Mm-hmm. loolu bu fekkoon tey doomu France bu mel noonu. ah mais la Ousmane Sonko maanaam projet bi am lanteel ba tey mm-hmm. France yóbbu nañu. mais Bibo Bourgi. ba ñu ko yóbbu tribunal dinañ ko teg ci civière. dañ ko teg ci civière. cest à que man ñii dama foog ni dañoo fàtte démb. mais vingt cinq personnalités Ablaye Wade yi ñu toogoon procureur Alioune ndaw doon tudd seen tur. Mm-hmm. mais booba ban ban dogal walla lan moo wone wone ñii dañoo sàcc amagul woon. Mm-hmm. dara mais dañoo xëy interdire leen ñu génn dëkk bi. gars yi commencé di ñëw di jébbalu. waaw waaw ñu baal waaw Ablaye ma dikkee dee tax affaire ba. yow ñii nii nii am na rapport yu génn xëy na. seen saw Seydou Sow daa jotagul ci rapport ah léegi léegi de gis naa ñu ne euh, Abdoulaye Seydou Sow mi nga xam ne moo doon wax ci mbirum euh, rapport yi voilà mu ngi nii mu ni Abdoulaye Seydou Sow figure parmi les autorités épinglées par le rapport de la Cour des comptes sur Prodac. Ah, lui avec un monsieur nommé Ahmed Tidiane Dia ont été euh, nommé par le président Macky Sall du conseil d'orientation du pro du ah Prodac moom. wax eh, dëgg yàlla moom la loolu eh, moom ma nga dig. gis nga ñu nekk kon kay ko kay moom mooy. kon moom nee na dara épinglé wu. xam nga. non da koo yëgagut nag. kon yëgu ko. Eh, xam nga non non non gis nga lii nii boo ko yëgee Macky Sall yëg na ko maanaam dafa jàppul woon ne. way ci ñi ñuy jàpp la bokk. xam nga rapport bu am ci jamonoy Macky Sall. kii yëg na mhm. ko kii. yëg na ko yëg na ko. li ñuy def yëpp. li ñuy def yëpp dañuy dox ci maay ni nit ñi. Mhm. te xamuñ ne ñi ñu ko saxal gis nga ñi ñu ko saxal lépp lu ñuy def rek dañ koo càmbar teg ko ci yoon. lépp lu ñuy def rek dañ koo càmbar teg ko ci yoon gis nga euh, saway fàtte xaju fi. Mm-hmm. ñoom li ñuy jooy tey li ñuy jooy tey loolu lañ fi def mu ne weng mu ne nga yónnee ko information boobu mm-hmm. loolu la ñu def mu ne weng ñoom war nañ fee toog tey di wax ay waxu interdiction de sortie bu ñu tegu ñoom déggoolu ma la jamono yi Ablaye Wade dem nañ ba ne Ablaye Wade ba muy dem daa sàcc moquette ya nekkoon ca palais ba. yóbbaale sàcc tablette ya nekk tableau ya nekkoon ca mm, mm, palais ba. ca lañ fa jógee woon doon dem ci communauté rurale yi di nangu oto ya nga xam ne Ablaye Wade moo ko mayoon chef de village yi. li mm-hmm. ñoom ñoom lu ñu fi jiñul lay Wade am dafa mais lu ñu fi ab Ablaye Wade amul te boobu amul benn enquête benn enquête benn rapport bu génn di épingler gestion Ablaye Wade boobu amutoon. donc de neewoon na leen li ngeen ñuy def. ñu jël Karim Wade. tëj ko fi. Mhm. Karim Wade fortune bi ñu ko attribué woon ne moom la am ci dëkk bi ndeysaan am na ci sax koo xam ne benn politicien bu mag yàlla na ko yàlla yërëm. Mhm. waxoon na ne Abla da waxoon na ne Karim Wade benn avion la jël du ci ay ay ay ay ay ay ba mu fees dem ak moom. lu nekk wax nañ ko fi. amoon na keneen ku tamit kooku it gaañu na. sëy na 4000 milliards. waaw ces gens là. keneen ki musa Félix Sow kii bi baro bi ci la nekkoon. waaw ces gens là ne li ñu fi doon def ba pare te teguñ ko ci yoon moom tey lañ leen lu mel noonu lañ leen di def ba pare teg ko ci yoon loolu mooy différence bi ñoom lañ doon def teguñ ko ci yoon mm-hmm. ñii li ñuy def tey dañ koo teg ci yoon conférence de presse ay dama doon dem seetaani match Sénégal ay dama parce que ci bi laa bokk dama doon dem jëli médaille yi Sénégal <laughs> doo génn doo génn voilà te yow boo foogee ne yow mun ngaa dox ci Sénégalais yi mun ngaa dox ci maayin Sénégalais yi yaay nax sa bopp lépp yow yow doo cour des comptes. yow doo inspection général d'État. yow doo doo doo nag doo IGE yow ci fan nga mën a toog rek sukkandiku ne amul benn rapport bu ma épinglé. yow mm-hmm. fan nga ko mën a teg yow koy xaaral bañ présenter le rapport yi. nga doog wax. te gis nga Sénégalais mooy li ma lay wax rek Sénégalais. ils n'ont pas besoin de rapport pour xam ne ñii dañ fay nekk. waaw sàcc que ba si ñu dëgmal dinañ xam fan la. Ah, waaw waaw man de voilà saa euh, du ñu terminer te waxuñu euh, ci li nga xamante ni moo di tiis bi am tey mu di accident bu metti bi am fële ca euh, Nangalma juróom fukki nit ak juróom-benn ñàkk si seen bakkan mu doon loo xam ni mi ngi bëgg a nekk nag. lu lu lu graaw nekk na ko sax parce que Sénégal léegi accident yi commencé na jéggi dayoo tamit quand parle de la responsabilité de l'État certes ci benn côté mais aussi parfois ça dépend de nos comportements de l'indiscipline totale ci li nga xam noonu la ñuy dawee ci oto yi oto yu yàqu yi oto yi amul visite technique yu baax corruption bi nga xam ne tax na accident yi ñu commencé ko gis y a énormément de problèmes yoo xamante ni buñ nee état ci beneen pàcc ba itam dinañu wax ñi nga xam ne ñoo di dawalkat yi. waaye ma fi limal yëpp nag footu état la. waaw maa wax la góoma benn bu ci doon footu chauffeur bi. donte chauffeur bi da ciy am mais bu état defee li mu war a def mooy chauffeur bi du ko sañ a def. ma ñëw ci muy oto bu yàqu bi. waaw dafay romb dem defi visite technique. Mm-hmm. moi même dem naa di def visite technique am oto boo xam ne bi may dugg. Mm-hmm. dañ ko doon puus sama kanam. loolu de gis naa maa fekke kon jeex na kon wéetu ma ci. <laughs> beneen bi mooy bu génnee foofu. Mhm. day romb ay takk der. Mhm. mooy leen Ousmane Sonko waxoon rek. pataay rek ne leen bi mu nekkee ci lii bi ma koy wax mu nekk ci sama bi fa ma doon liggéeyee dama ko doon dénoncé. Mhm. mais en tant que agent impôt dafa mu nekkee foofu. mais nekkee ci yéen it dañ koy wax dafa am ci yéen ñoo xam ne <coughs> loolu seen problème la. rigueur ba ca way mu nee na leen wax ngeen formation mu ne danañ ko def waaye it man foofu dama ne gis nga am na benn affaire buy tax bu waa impôt bu ñu defal waa impôt ba tax ku ci bëgg gore man ngaa gën a am élément yuy tax nga gore waxuma nag ne boo doon fayeeku nàngam rek say soxla daf laa ëpp ko dangaa war a dem lekk ger déedéet ger moom kenn waru ko lekk mais nit ñi soo leen di liggéeyloo war nga tey li am douane ak impo muy fonds commun mm-hmm. pour man alkaati bi war na ko am selon yow buñ la jàppee am ci loo xam ne tey pour man douze mille yi nga xam ne moom la ñu affaire bi mm-hmm. alkaati bi jàpp douze mille deux mille yooyu war na dugg ci seen kees ñoom boo xam ne tey moom loolu mën na cee am dara beneen bi mooy six mille mille francs yi mën naa génn am fu mu dem ci fonds commun yi mhm. parce que loolu day gën a tax sax suñu kii dafay dafay gën a am trois mille et cent yi mën naa dem ak yu mel noonu man damaa am gëm-gëm ne alkaati warul baal kenn mhm. man taxaw naan ñaan nangam man ñi ma xam sax xam nañ ko sama coow du ci bari mooy dangaa jàpp ne damaa def lii. bindal ma bindal. Mm-hmm. ma fay. loolu nag comme loolu bu ko état defoon ba pare wut ay nit yoo xam ne danañu mën di yëddu di rond ci terrain bi surtout ak projet lanceur d'alerte yi sax loolu mm-hmm. mën na nekk. ak caméra yi ñu leen di waaj a sampal. jeex na mooy caméra am man yàlla dina bëri ñun ci jàpp. man yàlla dafa dogal avant ministre bi wax dafa dama koo dund. injustice boo xam ne alkaati ma ko teg mais bi may xeex li may samay droit dama cee boole droit alkaati yi.